ayca salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu internet 313 digital ginnaaw ba ñu leen nuyoo am nañu mbégte bu baax a baax ak contentement ñëwaat ak yéen ci li nga xamee ni moom mooy les actualités. donc euh, li nga xam ne nag euh, moom la ñuy waxtaanee ku nekk xam na ni moom moo nekk actualité ci jamono ji ñuy wax ak yéen ki ngeen jàkkaarloo nag moom mooy Serigne Bass ahmadu xamee ngeen ko. donc euh, bi ñu mujjee jàkkaarloo ak moom yaakaar naa ni c'était au mois de septembre sëñ bi su ma juumul. huitième mois donc euh, voilà moo nekkoon mois d'août kon. alors euh, ci mois d'août la ñu mujjee woon a jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy sëñ Bass Ahmadou bi ñu jàkkaarloo moom ba noppi nag waxtaanoon ci li nga xamee ni moom mooy actualité réew mi waxtaan ci fi politique toll wax ci mbiri Sonko wax ci mbiri Macky Sall ak yu ni mel depuis boobu nag la ñu gëj a gis wala gëj a dégg ki nga xam ne moom mooy Serigne bas Ahmadou waaye euh, gëj a gis beeg gëj dégg beeg lépp ndeke daa am lu ko waraloon euh, li ko waraloon nag tey daañ ci waxtaan waaye laataa loolu dama koy bàyyi mu nuyoonteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy internet yeeg ay soppeem ak ñi nga xam ne itam ñoo am kóolute jëmale ko ci moom sëñ Bass Ahmadou maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mhm. alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diini iyaaka nahbadu wa iyaaka nastain ihdina siraata mustaqima siraata allazina anamta alayhim xayril mahdubi alayhim wala dalin lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnata xaraa wa in ahmadu lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnata xaraa wa in ahmadu lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnata xaraa wa in ahmadu waaw li tax ma indi lii nag damay sant suñ borom ndeysaan ndeysaan ndeysaan damay sant suñ borom boo gisee ma indi bayit bi tamit lil Moustapha nawaytu maa ngi jadd mhm. sëñ Tuubaa moo ko bindoon mhm. moo ko bindoon ni dama ñëw pour yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la waaw sax xam nga li tax ma indi ko bi ma nekkee si kaso bi ñëpp dañ ma doon wooyee sëñ bi laa lay sëñ bi laa lay xoole dem ba adjudant bi sax ni ma sëñ Touba sëñ Touba la ma sëñ Touba moo tax ma indi ko muy lu am solo man fu ma dem rek loolu day si man daal voilà fu ma dem rek dañ may xoole jëmm ji ndax maanaam xam nga ni may solo ni chaque jour moom laay solo man amu beneen yére amu beneen yére waaw maa ngi nuyu nag seen mbokk internet yi mhm. di nuyu waa Sénégal di leen sant di leen gërëm di gërëm tey du waa Pastef yi ma fekk si kaso bi ndax vraiment jox nañ ma cër jàppale ma ndax biñ déggee nii mbir Sonko moo fi indi ñëpp ma jàpp. dëgg la ñëpp ma jàpp. dëgg la vraiment loolu moom dinaa wax balaa may balaa may avancé ko voilà maa ngi sant waa Pastef yëpp mhm. di sant waa Sénégal yëpp ndax vraiment ñëpp a ngi may woo boobu ba léegi dëgg la waaw ndeysaan loolu ngëneel la te mhm. itam sant yàlla la ndax daraja du nit moo koy jox boppam waaye yàlla moo koy def ci doomu aadama bu bu mu ko sopp ba tax na ki nga xam ne moom mooy euh, sëriñ Bass Ahmadou mhm. loolu la yàlla def ci moom euh, comme ni mu ko waxee sëriñ bas Ahmadou dañ fi ñëw def ak moom interview waxtaan ci mbiri Sonko waaye après loolu euh, la téye ko fi nga xam ne moom mooy euh, kaso bu rëbës. Mm. donc loolu nekk mbir moo xamante ne man mi nga xam ne ñoo defandoo woon interview bi. Mm. ba ma ko yégee yàggul barki démb bi nga génnee laa koy doog a yëg. Mm. Euh, mu nekkoon lu ma bett nekk loo xam ne itam wax dëgg fa yàlla euh, nekk na naqar ci sama biir xol waaye nag dañuy dañuy sant yàlla te xam ne yàlla lu mu def lu ne. loolu moo gën. sëñ Bas tey li nga xamante ne am na dal ci sa kaw. muy wax ci mbiri Sonko. ñu teg la loxo laataa ñu dugg ci yenn xóotal yi mbir mu ni mel noo ko gisee waaw waaw xam nga mbir mu ni mel jamono yooyu mhm. jamono yooyu moom noonu la rek mënoon demee jamono yooyu mhm. jamono yooyu moom xam nga ndax bi ñu jàppee vendredi Sonko lañ ko jàpp yàgg na yàggul lool maa ngi ñu def kii boobu mi ngi nekk si digg kii bi. ci digg boobu moom ñu si jàpp bari na du man kese ñu baree bari lañ si jàpp si wax ni ay Facebook ay waxtaan ay kii. mais xam nga jàpp ñi moo wóoree ndax man xam nga man duma koy saaga yow xam nga. man du ma saaga du ma wax lu ñaaw duma wax lu bon. li ma li ma waxoon li ma génnee waxaan naa ko ma génnee. Mhm. vidéo bi ma njëkk a def dama ni man li ma waxoon ban yóbbu ma analyse la woon ndax man du ma génne kàddu yu bon sama sama gémmañ dama ne woon rek nit ki fekk attewoo ko defagul dara. dëgg la sa loolu loi Sénégal moo ko wax. jamono yi naan dañuy tëj Sonko dañuy tëj parce que man leen nit ki fekk atteegoo ko tooñagul ndax atteegoo ko defagul dara bi ma génnee moom laa waxaat si biti. analyse yooyu moo fa yóbbu woon man du saaga duma président dama ko naw dama ko defaan ba sonn bi sama xarit yi déggee ni dañ dañ ma jàpp dama génn ñu ne ah yaa daan defaan président ma leen waaw ndax président la président dañ koy jox cër. Mhm. dama ko daan defaan fu ma toog am na benn anecdote bi mu Kaliphone Kaliphone. Kaliphone Sall. Kaliphone xam nga daan saaga. di saaga bi ko président Macky Sall recevoir France yooyu léegi ma amoon benn scène comme nii rek bu ma ma doon def sama garab yi mu laaj ma si loo si xam ni ma ah kii daan saaga tey président recevoir ma ne ko waaw ndax day jéggale l'islam l'islam moo santaane nit ki bu la tooñee nga jéggal ko président dafa def li mu war a def day jéggale day baale. xam nga loolu man maa ko waxoon. Mhm. xam nga mënoon wax li nit ñi doon wax jamono ndax nit ñaa ngi wax lu nekk. mais man mais man foofu laa nekk man tey bu Sonko defee lu baax dama koy wax président Macky Sall bu defee baax dama koy wax féetewum benn côté man féetewum benn côté. Mhm. mais xam nga dëgg tamit moom moom mooy dëgg. maanaam bul ni rek tey jamono ji tàng na nit ki def na lu baax du ma ko wax su ma ko waxee ñu kii ma loolu kon nekkatoo si. yoon bi. dëgg la yoonu dëgg moo taxoon ma wax ko. Mm-hmm. sama léegi fa nekk yoonu dëgg laa nekk yoonu dëgg. yoonu dëgg waaw man maanaam man li may ragal ma ñëw ñu ne ma yow yaa tooñ yaa ma tooñ. Mm-hmm. man loolu laay ragal. lu jar moytu mais yow man maa la tooñ. loolu ragaluma ko. ragaloo ragaluma ko. <laughs> mu ngi noonu vraiment. waaye sëñ bi euh, ñu gis ne euh, du yow rek comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. ñu baree baree bari téye nañ leen. Euh, lu ci lu ci tollook ay weeri weer ci biir kaso bi ci ñoo xam ne c'est des responsables donc duma tiire fenn exemple te yow nga toog yow rek exemple nga mm-hmm. nekk koo xam ne ay charges yu bëri daane sa kaw nga yor sa liggéey yor sa njaboot yor itam ay euh, yeneen i mbir yoo xam ne danga ko war di lijjanti mm-hmm. tey bu ñu la téyee ci kaso bi mois d'août ba mois de février tey ñuy wax six wala sept mois six mois yoo xam ne voilà nekk nga ko ci kaso bi defoo benn activité waaw defoo dara mais loolu itam est-ce que nekkul loo xamante ne luy tardeel suñu économie la ci nit ñoo xamante ne dañu am ay activité si loolu kay waxuma tardeel mais maanaam ñi may jokkoo sama xarit nekk Europe ñi ma bu doon Europe fii boo génnee bala ngaa dem yow dañ lay ndàmp ndax maanaam xam nga six mois xam nga six mois sa ñun ay borom yi duñ borom benn jabar duñ borom kii ay borom yi soxna lañ. yor ay doom yor ay kër yu am ay sas da ngay war a fay wii fi war a fay nangam da ngay war a fay da nga kaso bi yooyu taxawul. non taxawul. Mhm. mën na taxaw ndax kër moom amut amut conseil. du buñ la jàppee da naan waa kër gi toog leen ba ma ñëw. Mhm. dañuy lekk di naan. dëgg la voilà mais loolu nag état moo si waroon a rendre compte. Mhm. daal ni kat fii comme nit koo xam ne yow deful ndax yow yaa ne ko deful demal ñibbi xam ko def dañ koy àtte dañ lay woo àtte la mhm. ne la yow yaa def àtte la yaa def lii bu leen la mhm. mais koo woo ni ko yow enquête defoo demal ñibbi ah maanaam loolu vraiment daf moom metti Sénégal dëgg ndax du man kese am na ñoo xam ne sport peut-être maa leen tane ndax xam nga nga toog 6 mois liggéeyoo defoo dara am ñoo xam ne seen soxna am na si ginnaaw doom mhm. man ñu ma xam waa Pastef foofu ñoo xam ne seen yaay gaañu na fa pourtant bàyyi nañ leen ñoom ñëpp. te pourtant koo si gis dañ ko jiñoon ay dëli dëli nangam nangam nangam mais après dañ lay woo daal la bàyyi. Mhm. voilà mais loolu moom vraiment lu ma méttee méttee méttee ndax nit ki toog responsable yi mel ni ñun toog 6 mois liggéeyut. Mhm. ah liggéeyut nga xëy xëy ni ko demal ñibbi. kon kon yow bokkoo ci ñi ñu àtte ñi ñeneen itam. kenn àttewul non man moom àttuñ man moom. dañ xëy rek am na si ñeneen tamit. du ma wax ñëpp ndax am na ay benn benn àtte ba pare dem leen ñibbi. am na ñu àtte mais man moom at man moom dañ ma woo enquête xam nga enquête ngay njëkk a dem boo demee enquête juge bi déglu la muy siis bu baax nag vraiment macha allah kooku moom vraiment ndax ni ma ni ma recevoir ak ni ñu waxtaanee vraiment muy siis baax moom ma demal ñibbi. ndax ndax maanaam loi Sénégal moo demee noonu mandat dépôt si la bokk. Mhm. ñu fa téye woon noonu ñëpp après baleen ku ci mel ni yow ak ñooñu digguñu leen genre ay ndàmpaay wala ay indemnisation yu ni mel dañ leen a bàyyi noonu rek. maanaam man moom ay ndàmpaay si état bi moom dégguma ko. dégguma kenn kuñ si dégguma ko dégguma ko bokk ndax ñi fa ne ñu dana la maa ngi six mois ñii ma am na ñu fa am ba deux ans ñi dana maa ngi si un sama kër nangam essai dépasse dama koy taqale ñi naan nang maanaam ñi ma si xam dafa bari man maanaam ñi ma si ñi ma si dëkkaloon rek Aliou saane Aliou Sané Y'en a marre. Fadilou Keïta xam nga ko bu baax. Jamil Sané xam nga ko. Mm-hmm. bay naa gay xam nga ko. Mhm. nay leer xam nga ko. Mhm. ndongo Diop xam nga ko ñoom ñëpp nag foofu laa leen xamee. ndeysaan. <laughs> foofu laa leen xamee wax ci Sonko yëpp boobu xamoo ñoom ñëpp. xaw ma si kenn jamono may analyse Sonko dama doon analyse pour analyse rek mais xaw ma woon benn parce que mais instant damaa xam waa Pastef yëpp presque. ndax ñoom xam nga ne bokk nga ci famille xam nga du nëbbe non xam nga du nëbbate dëgg la non maanaam man bokk ñoom ñoo ma jël def seen bopp di ma toppatoo di ma jëndal lu ma soxla ku mel ni Jamil Sané mënu ma koo fay ndeysaan vraiment maire ma Massar mhm. dama koy bàyyi ak yàlla lu ma soxla da ciy jàpp di ma wooye sëñ bi di ma booleek ñëpp Maître Moussa Diop mi sax Maître Moussa Diop. Maître Moussa Diop Maître Moussa Diop ndeysaan fa la ma doon wooyee sëñ bi. ndeysaan sama kooku maa la ñëpp jàpp ma def maanaam daal dañ ma yëkkati foofu si kaw bi ñu yëgee ne man song moo fi indi. Mhm. no xaw ma ñaata Pastef laa xam instant xaw ma ko bari na lool lool lool. jeunes yi ñëpp ma bëgg ni ma yow Pastef nga léegi ma leen dee ma dama doon analyser mais ñëpp ma si boole. ñëpp laa la wax ñëpp vraiment ñu ñu baax ñoo xam ni vraiment bu leen xamul rek xamoo leen. mais kon yow ma euh, dafa mel ni comme ñi ma fi ñi ma fi limal nii moom xam naa ni bokkuñu ci ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo doon ñoom ñooy ñi nga xam ne euh, dañoo génn naan nit ñu paqueté wak nit ñu nit ñu doon teg leeg dañ doon taxaw suba ba ngoon ak yéen xanaa bokk leen. waaw ci loolu vraiment man moom bokkuma si yooyu su ma waxee xam nga tamit wax dëgg si la. Mhm. man chambre de la rentrée dafa am premier secteur deuxième secteur troisième quatrième troisième secteur quatrième secteur cinquième secteur cinquième secteur mooy cinq mooy secteur bi gën a macha allah. Mhm. bu xéwale bi. d'accord deux mooy premier secteur. Mhm. premier secteur deux moom neexut fa laa rentré mais foofu moom neexut. Ah, da ngay ñëw rek a waaw waaw xam nga xam nga chambre yi la d' accord mais dafa Tëbës dafa am noo xam ne boo ñëwee day am foo rentré rentré ak mutation ma rentré moom taxu koo neex mais. rentré ñaata ñaata ñaata. def naa fa semaine yàggut. semaine mais maanaam si biir rentré bi tamit am na ñu ma fa fekk ay taalibe ñu gis ni ma solo rek ñoom ñoo ma may seen place. ndeysaan <laughs> ne ma doo tëdd si yii foofu méttiwul comme mais ba léegi foofu dafa fees ndax néeg bu mag la. Mhm. dafa bari nit. maanaam même budul tëdd bi sangu bi rek mën nga tey jii boo waree boo rangee tey suba ngay sang suba ndax rang la rang bi dañuy rang dafa am ñu yore douche dafa am ñu ko yore. Mhm. ñoo xam ne ñoo lay ñooy jël ba kër muy jeex mën nga ran tey suba ngay sang suba. <laughs> ndax par xam nga ay cent nangam personnes ay cent trente wala cent cinquante personnes si benn néeg. Mhm. ñuy war a sangu sa ku nekk sa sanguwaay day yàgg. dëgg la foofu laa jógee après ñu mité ma cinquante cinquante tamit chambre bu baax la ay kilifa rek ñoo fa daan nekk mais dafa bari nit dafa rëy. sàmm bu rëy la foofu tamit ay cent nangam mais foofu tamit yàlla defal ma fa tamit encore xéewal chef de chambre bi tamit mu ñëw rek mu nekk taalibe jàpp ma nga xam ne raam sax da koy dagg dugal ma nga xam da siy dégg lu ne ndeysaan da siy dégg lu ne xam yàlla mooy def ku dul kii quoi yàlla moo koy def mm-hmm. man fu ma dem damay jox cër foofu tamit noonu laa fa nekkee mu neex lool kuréel maanaam maasa da ngay kuréel def lu jàng jaamu yàlla moo fa am mm-hmm. ma fa jógee 37 la ma yóbbu 37 37 mooy cinquième secteur fa la kilifa yi nekk kilifa yëpp ma lay limal noonu. ak ñeneen ñoo xamul fa lañ nekk foofu moom macha allah kii bu baax la amul yooyu yëpp ay lal yu ndaw la am da ngay tëdd macha allah. man daal vraiment biir kaso moom xanaa li ma fa manqué woon mooy liñ la téye liggéeyoo. Mhm. bàyyi say soxna ñu mais vraiment amu fa benn benn benn jafe-jafe. bu dee mhm. directeur bi chef de cour bi dañ maa jàpp. artisan Ndiaye mooy yore mbirum social nga xam ne boo amul boo amul loo wootee moom moo lay may téléphone nga woote artisan Ndiaye xam nga loolu lépp am na fa social dafa am foo xam social la d'accord ñi nga ñi nga xam seen doole bariwul ñoom foofu la ñuy dem rang bind ticket boo ñëwee jox la nga woote kooku tamit macha allah sëñ Tuubaa la ma doon wooyee <laughs> maanaam man amuf benn jafe-jafe si mbirum jafe-jafe nii comme détenu non non mm. awma ko xanaa kay liy problème bi mooy kër ga ak mbiri affaire kër kese waaw kese loolu daal mooy sama jafe-jafe ndax xam nga 6 mois du benn fan. waaw dafa yàgg nag 6 mois nga def ko ci kaso bi. loolu daal moom moo nekkoon amoo foon jafe-jafe gannaaw euh, rentrée bi nga def. première semaine. Hmm. donc foofoo xawoon a xaw a. waaw foofu moom bi xaw naa. non foofu dafa metti comme ay 9 ak 10 presque foofu dafa metti foofu kay dafa metti moom dafa fees del. lu doy waar. lu doy waar dafa fees del moom moom à part à part ça à hmm. part ça lan la yàq ci sa wàllu liggéey. waaw mais dina ko yàq yow xam nga si dara. nga hmm. toog juróom benn weer wuy woo say client ah sëñ bi yewit <laughs> loolu loolu ko la wax yàqut dalay na juróom benn weer man nga xam ni damay liggéey xam nga suñu liggéey ni mu demee benn weer rek mën nga see mm-hmm. weer wuyoo sa téléphone say client di la di la woo fu ne bi ma ñëwee ñi laa commencé xool appel absent yi ñi naan woo naa la ñaata yoon ak ñi la waroon jox xaalis ku ne ku ne am na ñoo xam ne seen garab dafa dem ñu war maa yónnee xaalis ñii war a jël si même bi may dem kere bi may dem police nit ñaa ngi may woo pour fee ñëw euh, rendez-vous ngoon rendez-vous yëpp fausé nga ne leen maa ngi dem te ñëw waaw maa ngi dem te ñëw xaw ma da ngay ñëwam déet lépp fausé xaalis bi ma waroon jot xaw ma nu mu toll mais lépp fausé loolu kay sëñ bi su ma nee la méttiwul dama lay nax. dëgg la lu métti la. Mhm. lu métti la mais man nag xam nga gëm yàlla dafa am ñun moom dañuy gëm suñu borom xam suñu borom lu mu def mooy li gën. Mhm. mën na laa bañ yóbbu kaso nga yor sa oto daw fenn accidenté dee. dëgg la suñu borom lu mu def rek am na lu tax. wallaahi dalay yóbbu kaso peut être yow nga yaakaar kaso métti na si yow fekk amoon na du gën a métti loolu wala ñu waroon laa agressé mu yóbbu la xam nga kaso dafa bëri sécurité. ñu waroon la agressé sax rey la mu yóbbu la làq la so mais loolu ngëm-ngëm moo koy def man moom gëm naa suñu borom ba loolu lépp vraiment dama ko jolaat delloo ko suñ borom moo tax bi may bi may bi may nuyoo ma jiital alhamdulilah sant yàlla ba pare. door a wax. doo ko wax waaw vraiment man moom maay sant yàlla ko. Mhm. mais nag metti na metti na moom loolu moom kenn du ko weneen. waaw waaw metti na moom loolu sax. kenn du ko weneen yàlla yàlla yàlla yokk. et puis euh, sëñ bi euh, kaso ku nekk xam na ni tamit euh, ñi nga xam ne mooy yeneen détenu yi bi ñuy génn. Mhm. ñu leen di tàllal micro dégg nga situation ñoom yi ñu doon dund par mhm. rapport ak yow yi nga dund. yow yi nga dund maanaam yaa ngi woon ci niveau boo xamante ne. loo soxla danga ko am. am sa jàmm am sa salaam li nga bëgg a lekk ngay lekk li nga bëgg naan ngay naan di waxtaan di tëdd heure di yeewu heure mais par rapport ak ñeneen ñi nga xam ne seen nekkin dafa métti est-ce que tamit état warul jël ay mesures ci ci ci ci côté boobu ba nga xam ne képp koo xam ne téye nañ la kaso nga dund dund boo xamante ne wax dëgg fa yàlla ba keroog ngay génn doo fa jëlee benn naqar waaw mais xam nga metti na kaso ba gaa hmm. metti na mais ñun bi ñu fa demee dañ fa dajeek directeur bu bees muy door a ñëw xam nga ñu fa demagul ni dañuy dégg 9 10 9 10 9 10. waaw mais bi ñu demee ñun dañ fa dajanteeg benn directeur bu bees mu door fa ñëw. Mhm. bi mu ñëwee néeg yi nga xam ne amul woon amul woon lal. Mhm. directeur bi dafa def lal. d'accord foofu maanaam foofu ñu ngi koy wooye dàmbaloo. dàmbaloo lañ koy wooye lal day ne suuf benn lal ne si kaw mu am escalier boo yéeg. vraiment 9 ak 10 ngay dégg léegi yépp am lal. yëpp sa bu njëkk dañ daan lal ñu ma déggee xam nga dem xoon bu njëkk dama hmm. dégg rek ñu ne bu njëkk da ngay tëdd nii rek si si peron bi nii tëdd nii paqueté mais léegi yëpp am lal man dama fa daan doxantu dama daan doxantu di seeti léeg waa 9 mais vraiment 9 10 14 chambre yu métti yëpp hmm. léegi yëpp am lal loolu man maa ko mën a seere moom xam nga nit ñi tamit am ñoo xam ni peut-être dañuy mer pour mer rek wax hmm. mais vraiment kaso ba moom dafa avancé carrément bu dee mbiri lekk yi léegi dafa avancé yàpp neex ngay lekk yàpp ñu togg. Mhm. ay petit pois ay macaroni. ceebu yàpp est-ce que ñëpp a koy lekk tamit. si non loolu moom benn togg bi la. xam nga ñoom dañu am euh, euh, cuisine détenue mooy cuisine bi ñu toggale détenue ak cuisine garde cuisine détenue bu ñu paree bool yi ñëpp a koy lekk. da nga naan kay est nañ reg wala du ñu reg ndax néegi mhm. tolloo wuñ. d'accord ndax nañu néegi ndaw la ñu yor mais am na néegi yoo xam 200 personnes mais même bu dee néegi buñ tolluwut su bool yi ñëw day ngande nekk ñaari bool wala ëpp na ko sax mais loolu nag maanaam pour régal la nag mooy ne problème bi moom ndax vraiment ay ñaata ñaata junni nit ñoo fa nekk. bari na de. voilà daal ku si xëy moom di nga am sa mburu di nga am sa mburu ñu defal la si beurre wala chocolat su bëccëgee. li ñu wooyee jangaa dina ñëw. jangaa euh, dina doon ceeb wala ceebu kecca man mi dama daan lekk ceebu yàpp bi. ceebu yàpp mercredi lay ñëw xam nga ñoom dañu am jour jour bi tàngam da nga koy xam mercredi man dama la sa naan añ ak yeneen jour vraiment ndax da daan neex. Mhm. ñu fa ne xam nañ ko. bu dee ngoon gi bu dee samedi ak yeneen weekend dañ lay toggal macaroni wala petit pois def si yàpp yàpp bu baax de waxuma la comme li gars wax ni de vraiment lu am. Mhm. am na yàpp bu baax man bu ma daan lekk bokk man ma fa demee laa wax xaw ma nag avant fay dem. loolu moom léeru ma mais bi ma fa demee nii daje fa ak directeur bu bees bi lépp a changé lal néeg bu mu dem fekk ñuy tëdd si karo yi. nga leen defaral ay lal mooy dàmbuloo instant yi pare na ñëpp ko am mais xam nga ñëpp duñu wax loolu. ak lu dambadoo dambadoo yi pare pare day am fu fees. waaw loolu moom am na. kaso la quoi kaso kaso la nag. Mm-hmm. kaso moom sëñ bi mënta mel ni comme wala du ñëpp xam na ñi tamit yemuñu. Mm-hmm. am ñoo xam mën nañoo ne fu ne am na ñoo xam dañuy nekk fu metti mm-hmm. neuf ak dix même bu amee laal tamit du mel comme cinquième secteur. waaw loolu am na. wala yeneen secteurs yi. wala quatrième secteur. maanaam yàlla moo bindee nag nit ñi moom noonu yemuñu. bu ñu demee fenn ñii dañuy neffale ñii neffale même àllaaxira noonu la mel am ñu fay dugg sawara de. loolu ñu dugg àjjana. Mhm. yàllaa ko def loolu de. Mm, tamit dëgg. <laughs> noonu la mel. tamit dëgg ni yàlla amee ay xaritam yàlla nekk borom kàttan goo xam ne kenn xamul lan la yàlla. Mhm. ak ni mu amee dayoo ba pare jël nit def ko xaritam. Hmm? Mhm. moo tax kon yemal du am. na waar foo mën di dem dina am ñoo xam ñooy nekk nii nekk si kaw am ñu sonn. mais loolu moom vraiment rëbës moom léegi changé na dëgg moom. loolu moom man maa ko wax sa scène bi ay lal néeg yëpp la am léegi yëpp sa bu njëkk amul woon lal ne nañ dañ lal nii rek ay mat la waaw loolu moom maa ko fekkee quoi maa ko mën a témoigner tamit mu ngi noonu mhm. ay ca sëñ euh, la ñu àndal ba tey euh, sëñ Bass li ñu tëjee nag mooy euh, question bi nga xam ne moom laa lay posé muy que ni libération bu metti bi nga xam ne le président bi nga koy libéré détenu yi gannaaw sa xalaat yow lan mooy sabab bi waaw maanaam xam soow bi dangay ngay dégg si nit ñi rek xam nga man du lu may leer may dem pale toog di ko xam. Mhm. mais da dégg si nit ñi rek. ñu mhm. naan dafa bëgg a apaiser quoi. d'accord man loolu laay dégg ñu ne président dafa bëgg dëkk bi dal ñu dem si élection ñëpp bokk Sénégal man ma man lii man lii contre ma ko. Mhm. no jàmm la jàmm. ah jàmm kay sëñ moom la ñëpp di wut bu ko neexoon mën na ko bañ a def mais maanaam def ko pour dëkk bi dal loolu lu am solo la. ce que yéexul tam. waaw non. non moom yéex na moom ndax maanaam boo bàyyi ba ñuy def fa ay ay weer rek ñuy def fa at moom yéex na. ñuy yàq ñuy yàqule voilà yàqule ndax ñun ñëpp yàqule nañ. ndax sa garab yi nga fi bàyyi day yàqu man mi bàyyi naa fi garab yàqu nañ. la ndax dafa am garab yi dafa am diire bu muy diire. Mhm. am garab yoo xam ne 6 mois lay am yoo xam ne du mat 6 mois am yoo xam ne 3 mois mais dangay ngay fekk lépp yàqu. Mhm. nga war a wutaat xaal defar sani sani garab seere nga war a defaraat ay garab. Mhm. loolu lépp ku la koy fay. président a Sall <laughs> ah waaw xanaa moo ñu koy fay de xanaa peut être <laughs> loolu laa yaakaar mën nañ ci am yaakaar waaw loolu laa yaakaar mën nañ ci am yaakaar waaw li may li may daaneel daal moom mooy comme mbirum faj moom ma lay wax mhm. ndax xam nga ñun loolu mooy suñu métier mhm. ñun masturbation la ñuy faj muy mballu ak néew kàttan ak yooyu xam nga si dara mhm. léegi ñun ñun moom loolu la ñuy kii client bu si soxla gaa yàgg nañ fee six mois ba léegi wante loolu mooy suñu liggéey waaw ku si soxla moom mën nga ñu soowoo masturbation koy def rab moo koy joxe bu dee kàttan boo defee masturbation bu yàggee day yóbbu sa kàttan sa kàttan day jóg mais boo jubee sa soxna sa kàttan day wàcc sidit di nga laal ndax masturbation moo koy def ah, rab moo koy def bu dee dañ lay dindi bi dañ la koy dindil ñun am nañ garab yi bu dee kàttan bi moo deñ am nañ garab yi ñu ngi siy woo daal ñëpp ku si ñëw muy waa Sonko waa ñëpp ndax dem naa dem naa ba jaxasoog ñoom instant dem naa ba jaxasoog waa Sonko yi <laughs> waa du nuyuwaat Bilal Diatta mhm. nit doof gaa yu baax sa waay. Mm-hmm, mm-hmm. boo jaxasoo ak ñoom doo leen xam quoi. Mm-hmm. nit doof non gaa yu baax dañ may su jootal laa la wax. ay taalibe la ñoom ñëpp ndeysaan ñoom ñëpp a baax. ñoom ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen di sant bay naa bay naa gay ñoo bokkoon benn. bay naa koy dégg actrice. waaw ñoo bokkoon benn néeg. ndeysaan vraiment ñeneen ñi ñoo bokk cours dañuy génn ñi di entraînement ñi di def maanaam muy ambiance bu neex daal. foofu daal ambiance bu neex la woon. vraiment macha allah. kon kay sëñ bi mën wax ni yéen a ngi waaj kon seen i élection ah bokk nga ci ñiy waaj élection yi kon. non man xam nga man nag politique gu ma. <laughs> waaw <laughs> politique nag man man moom vraiment politique gu ko ndax du sama kii. Mm-hmm. du sama kii mais su ma waxee lépp luy dëgg. Mm-hmm. Euh, fépp kuy dëgg fa laay féete. fa ngay mais nag du ma aw ma ay temps naan damay dem di kii wala di dem fa di dem fa loolu moom amaguma si kii quoi mais daal wax moom wax moom wax luy dëgg moom vraiment moom loolu moom. dañ koy def quoi. dañ koy def quoi sa maa ngi ñaanal vraiment ñëpp maa ñaanal ñëpp ak ñi ma jàppale si kose bi waa Sonko yi ñëpp ku ma si dégg ak ku ma si déggu maa ngi lay ñaanal. suñu Seex Coro Mbàkke kooku ñoo bokk Touba. Mm-hmm. député la maa moom dañuy ànd avant yàgg na. yàgg na lool loolu moom maa ngi moom la quoi Touba la. Mm-hmm. waaw di ñaanal ñëpp waaw di joxe sama benn numéro téléphone. waaw naa la may loolu. waaw mooy tigo bi. Mm-hmm. tigo bi moom mooy whatsapp bi. mooy 76. 699. cinq quarante 41. Mhm. mooy tigo bi mooy whatsapp mooy appel bi. 680 76 699 45 41 maa ngi gërëm waa Sénégal yëpp nag. ndax mhm. gis naa ñëpp a ngi may woo. ñëpp mhm. ñëpp waaw. di sant yàlla di ñaan si réew mi jàmm. surtout waaw si dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu sama sama xarit bi sëñ Abdou Karim xam naa peut-être yéeg na wala yëgu ko. sëñ Abdou Karim maa ngi koy nuyu di ko ñaanal vraiment maa ngi koy ñaanal baax a baax ndax yàlla moo ñu boole. di ñaanal Sénégal yëpp. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa mu ngi noonu merci beaucoup sëñ Bass euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci ànd gi nga ànd ak 313 digital ak itam oyof gi nga àndal ak disponibilité bi ñu mën a ñëw waxtaan ci situation yi nga xam ne moom nga dund foofu ci rëbës euh, ñu ngi leen di fàttali yéen euh, cent 313 yi ngeen di wéy di abonné tey bës ci cloche notification bi bu leen fàtte itam li nga xam ne sëñ Bass wax na leen ko muy képp koo xam ne da nga am feebaru néew kattan ak euh, di mballu ak yu ni mel donc yooyu mën nga ko woo ci numéro bi nga xam ne moom la joxe bu ko defee nag euh, ngeen jëflanteeg moom parce que xam naa ni am na ci ñenn ñoo xam ne bu ñu gisee vidéo bi euh, ñu xam ne seen waa ji ñëwaat na seen waa ji apparaître na donc mu ngi noonu mën ngeen ko woo ci numéro bi bu ko defee ngeen jëflantewaat ak moom comme ni ngeen ko daan defee ñu ngi ci woo ñëpp merci beaucoup c'était sur 313 digital